yow itam nga bég mu ne nañ xam ne ragal yàlla de dafa am meññet yu bari yoo xam ne ñi moom meññet moomu mën nga ko watt fii ci àdduna am meññet yoo xam ne nii yaa ngi koy watte euh, ëllëg yawmal qiyaama am yoo xam ni day gaaw a ñëw ñor nga jëfandikoo ci àdduna am yoo xam ni àllaaxira lay doon mu ne ba tey ci ragal yàlla googu la lay wax suñ borom subhanahu wa bi mu ni digal koor ca mujj ga daf noo xamal ne li ci mën a jóge ci jëf jooju mooy taqwallah yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqoon kon résultat woor te mooy nga woor bañ lekk bañ a naan bañ a def lenn loo xam ne la loola boo ko defee dañ naan koor gi baaxut mu ne loola lam lay andil mooy ragal suñu borom subhanahu wa taala mu dellu wax ne moom suñu borom subhanahu wa taala ayat kasira ya ayuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laalakum tattaqun ay yéen doomu aadama ragal leen yàlla yàlla mi nga xam ne moo leen bind bind ña leen fi jiitu woon loolu lépp ngir ngeen am taqwallah maanaam jaamu gi ngay def ak sa xel mi ngay yóbbu ci ñi la fi jiiti woon suñ boroom bind leen ak ñi mu bind tey li muy sàkk ci ñoom ñëpp mooy ñu xam mooy kan ba mën koo jox gëdd gi nga xam ne moom la yooyu moom suñu borom subhanahu wa taala suñ sëriñ si Ahmadu Bamba dellu waxaat ne iz akramul ibaadi inda allahi aktharuhum taqwan bila ishtibaahi nee na jaami yàlla yi gën a tedd fa sunu borom subhaanahu wa taala mooy ñi ko gën a ragal te nee na loolu ma lax lënt amu ci ndax ba dem ci alquran nee na inna akramakum inda allahi atqaakum sunu borom moom ka gën a tedd ci moom nee na mooy ki ma gën a ragal ñun nag doomu aadama dafa jël aaya boobu moom def safaan bi te foo ko waxee ñu ay di buuri sarax suñ boroom xoolul juddu sunu boroom xoolul sant sunu boroom daf laa bind nga nekkub jaam ba nga nangoo ne jaam nga mu ne la lii laa bëgg boo ca jaaree di sama waay boo ca jaaru doo soon sama waay toppatoowul fi nga juddoo wala ni nga sant wala xeet wa nga bokk bokk ca te defal def ci xeet wi lu kenn deful nga am ci yàlla kenn amut ca moom te kooku doy nañ ci misaal mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci famille la bokk am ndey baay am maam am fu mu jóge mu mel ne dafa dem di dem ba ci yàgg rek am kenn koo xam ni rek mu ne pël xaw a mel ne koy fancé ña jiite woon nekk fii xaw a mel ne dafa jiital ñu topp ci kon kon loolu jëf la jëf rek la doomu aadama bi mën a def defal ko yàlla ba yàlla loola saf ko mu teg la ca kaw waaye foo mën a bokk ak noo mën a sant boo defurut yàlla li mu bëgg ka koy defal la mu bëgg mu jox ko moom la mu bëgg kon ñuy xàmmee loolu inna akramakum inda allahi atqaakum ab jullit nag dafa war a gën a gëm yàlla ci lim waxkat ci li doomu aadama di wax bu doom doomu aadama waxee natt ko ci li yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su dëppoog loolu nga xam ne waxi yàlla moo gën a wér lépp wax yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a wér lépp waaye su yàlla waxee yonent bi wax ma wax sag ñàkka fayda ak sag yóbbu la ci li ngay jéem a gëm li ma wax man di fi bàyyi yàlla ñàkk fayda mënut a passé lool te yàlla li mu wax du deñ ne allah la yuxlifu l miaad mu ne ragal yàlla nag lan la mën a jox ki ko ragal maanaam wilayatullahi lil muttaqin yàlla féetewoo gi muy féetewoo ak ñi ko ragal maanaam ñi nekkee ay gaayam ginnaaw ba nga defee ay ndigalam bàyyi ay tereem ba am cër ci moom xam ne dañ naan ñii mooy almuttaqun mooy ñi ragal yàlla yàlla na ñooñu nag ñoom laa féetewoo loolu lan la lan lan loolu boobu résultat lan la ci mën a am mooy innahum lan yugnoo anka min allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin suñ borom nee na kenn ku la mën a jariñ ku dul yàlla amul waaye kenn ku la mën a lor ku dul yàlla amul ba la nuru la nit di def wala mu wax muy nuru lor day fekk suñu borom rek moo ànd ca loola allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha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 أشهد أن لا la ma ñor mooy wallahu waliyul muttaqin ña ragal yàlla daal moom ñoo ñooñu moom la yàlla di féetal mooy gaay suñu borom subhanahu wa taala te ragal yàlla googu nee na annaha xayru wasiyatin li annaha wasiyatun lil awalina wal axirin mooy ngën gi conseil boo xam ne ci ñi fi jiitoog ñi fi mujj ñëpp mooy conseil bi gën a baax ci ki gëm yàlla suñ boroom def ne wa laqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi lsamawati wa ma fi l ard wa kaana allahu ganiyan xamida mu ne conseillé woon wala digaloon na ñi nga xam ne dañ leen a jox téere muy ahlul kitaab ñu wàcc ci ñoom tawraat wala injil wala zabur xam ne muy téere yi nga xam ne ñoo jiitu alquranul karim mu ne ñoom de digaloon naa leen ñoom ña fi jiitu woon ak yéen ñii mooy ngeen ragal yàlla ndax su ngeen ko weddee moom yàlla na ngeen xam ne li fi asamaan yépp suñ borom a ko moom ñeel na suñu borom li ci suuf yépp ñeel na suñu borom te suñu borom moom mooy kii doylu wëlif muy soxla keneen ci lenn te itam bokk na nag ci ñàkk jom suñ borom nee na moo moom lu ci asamaan ak njariñam moo moom lu ci suuf ak njariñam te yow li ngay jariñoo yëpp génnut ñaar yooyu te defaloo ci sa bopp dara moom moo ko def kooku nag su la joxee ñee ne la ragal ma soo amee dara looy xalaat war nga koo ragal ndax kàttan goo xam ne kenn mënu koo nat te kenn du taxaw naan ko doog fi defe su la bindalee lii njariñ lépp xam ne même boo ko gëmut ci mbaaxam sax da nga jariñoo loolu boo gëmut yàlla sax yàlla dana la bàyyi ngay jariñoo li bind waaye war ngaa xam ne ki def loolu mu mbugal la moo gën a tuuti boo xoolee ci lim bind ak nim toll kon bu ne maa ngi lay conseillé la ñu fi jiitu woon di boromi téere ak yéen ñi mooy ngeen gëm yàlla te ragal ko te xam na yàlla moom moom li ci kaw asamaan moo moom li ci biir suuf al aqibatu al mahmuda lil muttaqin an nuqta juróom-ñaareel bi lan muy mujjug ñi ragal yàlla day nekk mujj goo xam ni ne gu sant la kon kii ragal yàlla ak mujjam day baax kama qaala allahu taala fi qissati muusa alayhi salaam maa qawmi qaala muusa li qawmi istaciinu billah wasbiru inna al arda lillahi yurisuha man yashaau min ibadihi wal aaqibatu lilmuttaqin comme ci qisatu Moussa alayhi salaam ni ko suñu borom subhanahu wa taala nettalee ak nitam ña ba Moussa waxee nitam ña ne leen da ngeen di sukkandiku ci yàlla istaayinu billah was wasbiru te ngeen muñ ndax jaamu yàlla kat day war a ànd ak muñ ndax dafa bari lu bakkan di laaj te loola soo ca toppee bakkan jaamu yàlla gi du mën a sell xam na ma waxoon istaayinu bi sabri was salaat surat baqara nee na suuf si kat yàlla moo ko moom moo koy donale ku neex ci jaamam kon bu la nee moo koy donale ku ko neex ci jaamam yi daal ne nag wala aaqibatu lil muttaqin waaye mujj gu baax gu rafet gu sell gu yiw ga mooy ña ragal yàlla kon mooy ibaadam yooyu tomb juróom ñetteel bi mooy taysirul ilmi naafi ki ragal yàlla yàlla def koy jàppandalal xam-xam bu njariñ suñ boroom def ne wattaqu llaha wa yuallimukum allah wallahu bi kulli shay'in alim nee na ragal leen yàlla yàlla xamal leen kon nit ki war na def effort bu ne pour xam jàng ndax jàng moom mooy tax su ma waxee jàng fi nag maa ngi ci jublu xam-xam bi lay xamal diine donte yëpp a baax waaye bi ëpp njariñ bi gën a baax mooy bi nga xam ne soo ko xamee dalay wax ni ngay jaamu yàlla kon xam-xam boobu moom ñëpp la war ñu wuti ko comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima jàng xam-xam farata ci jullit bu góor ak jullit bu jigéen sàkku xam-xam kon jër nga ko ban xam-xam xam nga ne xam-xamu diina moo tax mu wax waaye ba nga defee say effort jàng ko sàkk ko sa kem kàttan nee am na loo xam ne nii ci xam-xam taqwallah rek moo la koy may moo tax mu ne wattaqullah wa yuallimukumullah yàlla dina jàngale de yàlla am na ñu muy jàngal doomu aadama yi am na nu ñuy jàngal doomu aadama yi ordine nit ordinaire yi ñuy jàngal waaye sa njàng moom nag boo ci génn jëlee boo ci eggee ci taqawallah suñ borom mooy nekk booba sa professeur waxuma da ngay jàkkaarloog moom de mu naan la nii la waaye suñ borom ni muy dugale ci yow xam-xam moom xam ne ko yomb na boo amee taqwaa rek xam-xam baneen boo xam ne am njariñ la buy yokk ci li nga xaman loolu suñu borom moo la koy yenkool bokk na ci taqwalaa li nga ci mën a jële mooy nuurul basira gis-gisu xol walla leeru xol suñ borom def ne yaa ayyuha alladina amanu in tattaqu llaha lakum furqaana wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaxfir lakum wallahu dul fadlil azim nee na yéen ñi gëm yàlla su ngeen ragalee yàlla de yàlla dana leen may tawfiiqu alquran wala tawfiiqu mën a tàggale lii dëgg ak lu dul dëgg wala tawfiiqu leeru xol ba nopp du ca yam waaye nee na da leen di faral seeni ñaaw téef ba noppi jéggal leen seeni bàkkaar ndax nee na suñu borom borom nga ne lu yaata la bor ak mbaaxam moo yaata moom suñu borom subhanahu wa taala bokk na ci meññet mi ngay am ci taqwallah mooy mahabbatullahi taala wa malaikati nee na soo ragalee yàlla yàlla daf lay bëgg euh, malaaka yi dañ lay bëgg bu ko defee wa yatruxul qabul fil ard bu ko defee ñii ni kaw suuf ñëpp dañ lay bëgg ndax ragal googu nga ragal yàlla wa qad jaa dalika fi alquran alkarim salaasa marat وهي كما يلي بلى من أوفى بعهده wattaqa fa inna allah yuhibu almuttaqin mu ne xa ah, kay ki nga xam ne matal na kóllëreem diggante mag suñu borom subhanahu wa taala ba noppi ragal ko ne na fa inna allah yuhibu almuttaq yàlla day bëgg ñi ko ragal mu dellu waxaat ne inna allaha yuhibbul muttaqin nee na yàlla dafa bëgg ñi ko ragal ci taw ba ñaari yoon waxaate inna allaha yuhibbul muttaqin kon suñu boroom soo bëggee mu bëgg la nga bokk ci gaayam dangay góor-góorlu ci lim la digal nga di ko def lim la tere nga di ko bàyyi ngir nga mën am taqwa googu xam ne ëllëg buñ lay lim ci ñi sunu borom sopp nga nekk ca biir te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida ahaba allahu taala al abd naada jibril inna allaha taala yuhibbu fulana fa ahbib fa yuhibbu jibril fa yunaadi fi ahli sama inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbu ahlu sama suma yuda lahu alqabul fi l ard loolu xadis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jëlee nañ ci abi hurayra te mu ne suñ borom subhanahu wa taala bu bëggee ab jaamam nee day woo jibril ne ko euh, sunu borom de bëgg na diw sunu borom daa bëgg diw kon na nga ko bëgg nee na jibril daal di bëgg kooku daal di dem ci waa asamaan woo leen na leen yàlla de dafa bëgg diw kon bëgg leen ko nee waa asamaan ñëpp bëgg ko bu ko defee ñu door a wàcc ci suuf nag képp kuy baax wala ko sa xol sel nga bëgg kooku far la force ndax yàlla moo ko bëgg digal malaaka yi ñu bëgg ko jibril mu yónni jibril mu wax ni euh, malaaka yi bëgg ko mu wàcc ci suuf suñu borom def ci xol ñu baax ñu sell ñu ñoo ñu bëgg kon bokk mbokk yi ñu ngi yem foofu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu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 avec Efraer fii rekk la amul fenn. ngeen jot ñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si biti réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne mën a xam li xam ne